ngir gën a mën a sàmm yoreenu suuf ci ci diwaanu Diass tax na Porokasef nag dara faa def benn biro boo xamante ne nii day saytu lépp loo xamante rek moo jëm ci wàllu suuf si. bureau foncier maanaam bu ñu ko méngalee mooy un peu état civilu euh, suuf mooy bureau bi nga xamante ni bii bu ñu ko tabaxalee commune bi ku bëgg def sa demande fi ngay ñëw euh, def sa demande mu am procédure bu ñu teg ak maire yi ba ñu jox la kayit te kayit bi ñu lay jox ñun dañoo bëgg kayit boobu nekk kayit bu wóor. biro boobee na nga xamante ni nii banque mondiale moo ko financé bëri na aussi ci yeneen communes yoo xamante ni nan lañ ko fa def lu toll ci 138 bu ñu sukkandikoo ci coordinateur national Procasef bi. bureau bi nag tabax dañ koy dañ koy dañ koy tabax fii ci Diass mais dañ koy tabax également ci 138 communes yi nga xam mooy commune projet bi et entreprise yi koy gagné ñoom ñëpp commencé nañu construction yi ci communes yu bëri euh, bëgg nañ fii ak fukki weer. ak euh, lu teg juróom-ñett normalement mooy délai d'exécution bi bureau yi pare ñu inauguré ko agent foncier bi nekk fii ñu defal leen li ñuy wax système d'information foncière ba lépp luy commune yi di def ñu def ko ci benn machine. Mamadou Ndione nekk maire Diass jàpp ne bile bureau nag dina gën a renforcer sécurité bi ci wàllu foncier jëmale ci commune am bii. donc ñett ñaari niveau la la ma ñu ci amal sol liñ fi fekk nañ koy fexeelee wutal ay kayit. te wutaale également profité ki defaraale suñuy quartier ba yoon yi gën a baax beneen bi mooy acte bu ñuy mënati tegati mu dëppook loolu ay lotissement autorisé mu de te sorte que ñun en tant que maire suñu domaine de compétence fi mu yem bu buñ ciy teg acte rek citoyen bi kuñ ci jox kayit kayit bi di nga mën a wuti bàyyi cérémonie pose première pierre bi nga xam te ni nag ñoo ngi ko doon amal ci diwaanu Diass bëri na ay kilifa yoo xam te ni nañ ko délégation bi nga xam te nii Procasef ak ci njiitalu ki nga xam te mooy coordonnateur bi ñoo fa ñëwoon ñoom ñooñu nag daan nañ ñiy pëtoxlu ci teewaayu askanu saafi ngir rek gën leen a mën a expliquer njëriñu bureau boobee